yoo xamante ni ñoo ngi nekk ci brigade bu Touba Belel dañoo dóor ab policier ba pare daal di koy mënote loolu xibaar la boo xamante ni fan yii yëpp ñu jàll ñoo ngi koy waxtaanee fii nga xamante ni mooy Touba li nga xam ne nag moom lañ wax ne moo leen jotale mooy lu jëm ci mbirum conflit de compétence ci yoonu Belel wi ci biir loolu euh, tey tamit ci altine ji daal nañu xëy tamit gisaat ci presse bi ñu wax ne lu toll si juróomi gendarme yu nekk ci brigade bu Touba Belel ak seen commandant dañu leen a muté euh, fi nga xamante ni maanaam mooy dakaar dañu leen a jëlee Touba yóbbu leen daal maanaam Dakar leneen loo xamante ni tamit ci ay xibaar bokk na ci li ñu wax ne moo tax commandant boobu ñu jëlee ko fa bokk na si nag euh, bañ a wane ab taxawaay. bu mat sëkk taxawaayu kilifa bu waroon a am diggante police bi ak gendarme yi nga xamante ni daal euh, ñoo ko dóor ci lu jëm ci conflit de compétence yeneen xibaar tamit yoo xamante ni tey ay xibaar la yu ñu gàll ci ndoddul commandant bi ne moom da doon yombal ñenn ñoo xamante ni daal dañu doon dem ak dikk di jalgati li nga xam ne mooy interdiction trafic interurbain bi ñu ne da leen ko doon yombalal loolu tamit bokk na ci loo xamante ni euh, liir nañ ko tey ji ci presse bi euh, li tax ñu leen di fàttali lii lépp euh, mooy maire Soda Dieng mii ngeen di gis nii dafa indi ay leeral ci mbir mi ndax moom maire Soda dafa jàpp ne daal complot dafa am ci mbir mi ak ay journalistes yoo xamante ni daal dañuy yëngatu ci lu jëm ci euh, mbirum ger kàddu yooyu daal moom la maire Soda yëkkati ñu dégtal leen ko. asalaamaaleykum mbokki Sénégal. man la ajaratu Soda Dieng Touba Darou Khoudoss ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent bi di sant sama ñaari waajur di ñaan xalif général des mourides mu yàgg fi lool di wér di fàttaliku sama jàmbaar ji Cheikh Abdoulaye yal na yàlla yokk leeram te njaboot gi mu fi bàyyi yàlla teg ci ñoom loxo di ñaan feebar bii nga xam ne yàllaa ko fi wàcc kenn wàccewu ko fi ku kun fo yàkkun borom mbaar mi amutu jën ñi ngi koy ñaan di ko tàllal loxo ndax sénégalais ñaan rek na xam mu dàqal nu feebar bi mu dellu fa mu jóge woon maa ngi koy ñaan ci kattanu yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba mi ma yaakaar feebar bi yàlla na ko fi yàlla jële ndax yàq na économie Sénégal kenn xëyatut kenn gontatut kenn defatut dara beneen bi ci des ma koy lancé président Macky Sall xam na sama jikko xam na man may kan man du ma fen du ma wor du ma rambaaj lu ma wax ci siratal mustaqim laa ko teg complot bii ñu complot gendarmerie Touba Belel secteur ba ca la bokk je parle au nom de toute la population ñu complot ko gendarmerie Touba Belel bëgg leen fee jële ñun tëddatuñu woon ba nelaw man amal guur gendarmerie ba kenn yee yeewatu toonum xar bitig bu fa nit ubbi ñu tëj ko télé boo monté tey bu amee ñetti fan ñu dekaawee ko ñoom yàlla indi leen fi ñuy ay jàmbaar yi fàkk tëdd di liggéey may lii may wax yàlla tax ma wax ko weeru koor laa ne te wax danga ko waxaat ñuy nekk ci tali bi vingt quatre heures sur vingt quatre heures mbas mii ñuy wax li ñu ci liggéey benn nit bu ko ci liggéey fii ci Touba amul li fi gendarmerie Touba Belel te secteur ba ma dëkk amul ku fa du takk masque amul ku fay taxawaalu ñu fanaan ci tali bi dugg ci quartier yi ah woyu circulé tut bandi circulé tut ay nit jóge fale ci àll ba ànd ak journaliste yoo xam ne nii ay lobby la lan dóor kët marto dama nii as gor buy liggéey day seetal liggéeyam teg ko ci saratal mustahim ndax lobby ak dóor mart ak sos ak wax bëgg lu mu la may bis dana ñëw mu xañ la ko te journaliste yi bi bind lii yemelewu ko rek te gendarmerie Touba bi la def na ko docteur Dieng mii ñëpp xam di koy docteur jee mii ci hôpitalu jéemul bii ku ko neexut mu bindal la lu ko neex ku ko joxul xaalis doo ko bind loo mu jox may lancé appel sëñ Sidi bi sëñ Abdoulaat nag di ko ñaan ne ko gendarmerie Touba Belel bii nanu ci jóg ñii ñu kompaloo ba jëlee leen fii te nu liggéey raxas ko bañ nan ba seen secteur euh, jéggi siraat lañ ko nit ñi tudde secteur ba gendarmerie Touba Belel ne jéggi siraat la population bi tuddee jéggi si rak ñoom duñu gendarme yi corrompu yi gisoon ci ñoom benn défaut ñëpp a ma xam addina bépp ma xam amul ku may ragal amul ku may farfarloo amul kenn ku may mën a dugal ci ay lobby wala lu du dëgg mais lii may wax ci weeru koor laa ne yàlla tax ma wax ko liggéey bi nu fi liggéey nit musuñu ko fee liggéey nit ñi dañuy nelaw ba yandoor ñuy dugg ci ko yi di fanaan ba bët seet wecc six heures du matin vingt quatre heures sur vingt quatre leen di fekk tam la soxna may oto ca oto ba liggéey fa liggéey bu set wecc raxas secteur booba mu set wecc ay nit koppalooki journaliste lobby kët dóor kët moosu leen a dégg kenn koo xam ne nii gendarmerie Touba gendarmerie la dóor fii ci secteur Touba fi ku fi gendarmerie mosoo leen a dégg gendarmerie bu dóor kenn wala gendarme bu dóor nit wala mu def nit ñay doore xam nañ leen ñu koppaloog journaliste ñëw bëgg a yàq lii seen réputation sosal nit te lii ñu leen mujj a sosal wax ko ci Allo Dakar njaboot ñu bëgg leen yàq te loolu man duma ko seetaan tey population ba duñ ko seetaan ndaje mi tax nag ak li nu tere waaye kon danaa génne population ba bépp ñu def conférence de presse ndax kat li nu defal nit musuñu koo defal li nu gendarmerie Touba ba la defal ca secteur ba kenn daawu fo ne la loolu nag maa ngi koy lancé appel son président Macky Sall gendarmerie Touba beleel bii ñuy koppaloo bëgg koo tëj du fi amee tey du fi amee suba du fi amee gannaaw suba ndax ñun ñu jub d'accord nañ ci ñoom mais ñu luubu koppaloog journaliste yoo xam ne ay corrompi lañ xaalis la ñuy wut amuñu ngor amuñu diine ku nu tagg tey loo leen joxob xaalis loo bëgg ñu waxal la looloo war a jeex nag commandant bi nag maa ngi koy lancer appel xaw ma ko sama bët mu sa tege ci moom mais gis naa la ay di liggéey secteur ba sama secteur te waa koñ bi lu nu ma ma sa clamé ma leen ko waxee ñu saafara ñuy fanaanee patrie ba ba set wecc ñu dem raxas secteur ba ba mu set wecc nit ku dëng nag du bëgg nit ku baax liggéey bu set wecc lañ fa liggéey ñu jël ay journalistes yu bu wax loo leen loo xam ne nii lan eh, eh, eh, lanu wax dara du ca dëgg noonu lan ko sosalee docteur jee lii nag dama bëgg mu jeex te gendarmerie tout ñii ñu fo jële ñu delloo si waat leen fi ñu dellu si seen liggéey ndax liggéey bu set wecc lañ fa liggéey nit bu jubul nag du bëgg ko baax ndax ñoom doore wunu xaste wunu mais lanu sàkk woon ci nit ñi pour ñu takk ay masque dugg ci seeni kër loola nit ñaa leen ko doon defal te ci bi yar lan ko lan ko defanteeg ñoom kon maa ngi lancé appel ñi jóg pour faagaagal bëgg a tëj gendarmerie Touba Belal du jàll nee leen Adja Soda Dieng nee na du jàll ba ñu ma ci dara du jàll maa ngi lancé général bi ne ñii mu fi jële woon te di liggéey kët lii ma wax ay population ko tënk kalaame ma ko jox ma ko ma ñëw jàlle la na leen bàyyi ñu dellu ci seen liggéey defuñu fi dara lu ñaaw lu dul liggéey setal wecc loolu laa amoon lu may jàllale di wax nag di lancé waat appel Mansour Faye xam naa ne lii ñu ko dox dund bi dana ko joxe mais fa muy tagee suñu ci jógul jël ci ay mesures takk ba dëgër président population bi danañ souffrir danañ xiif danañ mar te bañ ñu xiif bañ ñu mar moo tax nga génne mille milliards teg ko ci taabal nanu ko jox ñi ko yeyoo ñi ko yeyoo nga fi ne gañ loolu laa amoon lu may jàllale ba beneen yoon merci beaucoup